niiwaat nañu leen mbokk téléspectateur Grand Yoff TV ñu dikk ak yéen ci xibaar bi nga xamante ni euh, ñeel na fans yi nga xamante ni mooy fans groupe Walfadjri ndaxte nag ñu ngi xëy xamal ne daal ki nga xamante ni moo di Ciss Thiaba euh, nekk koo xamante ni marqué na empreinte am ci groupe Walfadjri nekk fa nag ak léegi juróom-ñetti at nee nañ daal euh, moom daal dafa jóge ci wàllum mbirum audiovisuel maanaam daal bu doon làmbo ñu ne tekki na ngémbam ci wàll wi ndaxte nag journal kawtef point kom mo ngi waxal ne dal ki di tiaba fi toni nak nii na ak waa Walfadjri te fi nga xamanteni fa la jëm muy destination am eh, fi ñu toll nii nag dem fa nga xamanteni moy bitim rew and ak ki nga xamanteni mom moy jëkëram ba nopi nak nek ci ay mbiram donc kon xibar baa ngi Sista tiaba na ne na groupe Walfadjri dem ci lenen dem bitim rew and ak ki nga xamanteni mom modi jëkëram di kon nag xam naa ne groupe de presse boobee nga xamante ni mooy Cheikh Niass moom la jiite daañu ñàkk koo xamante ni euh, mën nañu wax ne yaay la woon ci ci groupe bi euh, moom si sa Thiaba yàgg fa lool lool lool yàgg bëggal euh, fans yu groupe Walfadjri kon nag tey jii moom lañ jàpp ne daal kon jóge na fi nga xamante ni moo di groupe Walfadjri jóge aussi ci milieu audiovisuel bi ànd ak jëkkëram dem fi nga xamante ni moo di États-Unis